Ouzin mu ngi noonu ci plateau bi Ouzin maa ngi lay nuyu. Baye Djily fay baax yàlla bu yaa ngi am jàmm. sant maa tey ñu fas yéene waxtaanee ci bilan écurie bi nga xamante ne mooy écurie Songane Gueye. Euh, écurie Tëngéej doon écurie boo xamante ni euh, ay ndaanaan nañ fa ay champion ngi fa euh, bis bis yu mag yu ne ñoom bëri nañ ko doomu Tëngéej ji mais da ngay dem ba écurie yi ñuy waxtaanee tey da ngay jaawale doo xam sax mbëri ci écurie bi ñu bokk ndax booloo bi ñu booloo doon benn li daal écurie Yoff loolu lañ gis ci écurie Tëngéej euh, tey bilan boobu lañ bëgg a waxtaanee. bàyyi ji li maa ngi leen di la fay bu baax baax li nga wax dëgg la ndax boo gisee Tëngéej. Hmm. Euh, xat na xatul. waaye écurie yi dañ faa bëri ndax boo nee songaan boobu songaan gay na écurie Tëngéej da nga yaakaar ñoo ama neex ñoom doomu dàngu ñoom ñi nga xamante ni moom ama yaa hmm. ñoo bokk écurie yi donte bokkuñu écurie yi ndax écurie yi bëri na hmm. écurie songaan gay bi ñuy waxtaanee fa la doomu dàngu nekk Mm-hmm. fii la kii ñuy wax euh, nu mu tuddati booy booy booy gàmmu gay. gàmmu gay ne. Mm-hmm. ba tax na ren def nañ euh, onze victoire. Mm-hmm. ak ñaata défaite. ak huit défaite huit ñu mën a wax promesse bu baax la. vraiment bu baax la parce que euh, huit onze combats onze victoire huit defet vraiment équipe bu ko def jar na ñu jaajëfal ko bu baax a baax a baax. ba pare lii daloon écurie yi moo leen daal. ndax moo xoolee xale yi rek ñoo jotoo bëri. Hmm. ñi di mbër yu mag yi jotul bëri ndax boo xoolee kii di doomu dàngu kenn gisu ko ren. Hmm. kii di gàmmu gëy tamit amoon na combat waaye corona bi ko yàq ndax defe hmm. naa ne samedi la ñu dem stade. dimanche bu ma alerte bi ñëw. Hmm. ñoom seen combat mujjee avorté. Hmm. mais boo gisee xale yi defe naa ne am nañ ci taxawaay bu am solo kii di ba am ndam. Hmm. waaye ji bi waaw góor gi na su ma jum stade Jom Iba Mar la mujjee bëri am ci ndam euh, bëri ak ay naat naataangoom euh, mu doon xale boo xamante ni làmb am nañ ci moom yaakaar góor gi étudiant parce que buy buy buy bëre da ngay gis étudiant yëpp ñëw ànd ak moom dooleel ko donte mu ngi jàng ba tey mais teewul dafa jël làmb def ko. muy bëgg-bëggam tey mbër dañ koy wax saasu ne mbër dafa war a am métier. Mm-hmm. mbër da ngaa war di am métier parce que jàng bi ute jàq yàqalu ko ak dara li nga xamante ne mooy làmbam gis nañ ko ci Boy Niang numéro 2 mm-hmm. moment bi muy def bac mu ngi bëre ci journée bu mag. bëri fa ndaanaan tourné pare juge fa dem école Camp la doon jànge dem école ba keroog euh, ñëpp élève moroomu élève yëpp dañoo kontaan ngir lan xam nañ ni tey suñu naataangoo bi nga xamante ni ñoo bokk classe war a def examen bëri na démb am ndam ñëw fii tey di ko ñàkkanteeg ñun euh, pour amaat beneen ndam moo lay wan ni làmb saa su ne rek dafay am jéego yoo xamante ni daf koy def làmb nag bu la xasee yóbbu ba ci kaw am na niveau boo xamante ni boo fa toll mënatoo koo booleeg dara mais comme tey euh, Balla Gaye 2 fi mu toll ci làmb pourquoi pas instant am na yenn moyens yoo xamante ne làmb defal na ko mun na ubbi yeneen ñu ngi ñoom ñëpp sax muy Balla muy Modou Lo muy keneen ak keneen am na yeneen business yoo xamante ne ñu ngi koy def après làmb bu làmb jeexee da gis ñu dem delluwaat seen activité mais bëgguñu kenn koo xamante ni euh, mu xam ni ñu ngi ci business yi tey kooku góor gi étudiant gis nga ko noonu la ci nekkee ba tey nii mu ngi jàng mu ngi ci nekk foofu tuuti am na mm-hmm. xale bu nekk taay suñu étudiant la moom tamit mm-hmm. que bëri journée ba journée bu mu bëri mais man li ma ci jaaxal mooy étudiant bu ñu bëree seen mbokk yi dañuy fees dal ci stade bi keroog la mu ànd ci public mbër yu mag yi sa àndiwuñu ko fa moo ngi nekk taay sunga mm. xam mm. a wër la am public mm. étudiants daal ñoom loolu dafa mel ni dalee ni neex bu ñu amee xale boo xamante étudiant la ni ñoom ñëw dugg si làmb dañuy bëgg ñëw dooleel ko wan ne ñun kat ci làmb lañ bokk ba tax na làmb nekk na ñun ñi ci nekk war nañ koo defaraat bu baax a baax góor étudiant maa ngi koy ci moom lañ ko njëkk a bu baax a baax waaw ñu delluwaat Songane Gueye ndax gis nañ góor gi étudiant bëri na fa am ndam doomu kunul ah mm. ak Ronaldinho mm. ñett ñooñu laa mën a lim ndax xale yi bëri nañ onze combat bu mu ko na lim yaakaar naa fi la fanaan mm. mais ñett ñooñu nekk nañ ña nga xamante ni bëri nañu ren te nekk nañ ñoo xam te ñu fel na seen combat neex na bëri nañ te daan na ñetti ñooy bàyyi ji li nga gisee ku ci mel ni Ronaldinho keroog dafa bëri daan ak manière bi moom Ronaldinho hmm. Ronaldinho nekk na xale boo xamante ne champion la Ousmane mu ngi nekkoon ci dynamique victoire yu am solo ba làmb commencé di ko bàyyi xel ñu jékki-jékki gisaatuñu ko mu mel ni tànk bi mu doon teg jéego jëm ci kaw euh, mu ngi reculer te reculer moom ñaanaluñ ko yàlla benn mbër parce que nekk na loo xamante ni baaxul ci mbër mais fi mu toll nii dafa mel ni taxaw na ci seetu xoolaat boppam xam li koy yàqal ak li koy defaral ba mu jaral ko mu duggaat ci làmb gis nga keroog sortie bi mujjee def euh, da ngay xam ni euh, masse bi demeewul noonu waaye am na bëri boo xamante ni mu ngi ci moom. waaw gis naa ne. Hmm. mën na ko dañoo gis ak ni nga bëree mënuma dañ doon wax naan aw ma hmm. ma dem xoolaat suma bopp yokk suma doole. moo tax tey bi mu ñëwee gis nga ni ma bëree tey. Hmm. moom ñoo ngi koy jaajëf lu baax a baax ndax moom laay wax mbër saa boo ñëwee saison bu bees bu ne. da nga war a bees si kanamu nit ñi. Hmm. ndax boo toogee 3 mois wala 4 mois yoo xam te kenn gisu la. Hmm. soo ñëwee ni nekk athlète. sa yaram war na changé tuuti mental war na changé war nga mën a évoluer ci kanam tuuti. moo tax keroog bi mu daan loolu wax ne dañ ne woon aw ma aw ma dem yokku doole. man bu ñëwee gis nga ni combat nañ xippi seen i bët xool. waaw waxi mbër la parce que mbër moom bu bëree combat am ci ndam euh, lu mu wax rek da nga naan dëgg la parce que moom moo am ndam moo daan moo dàq bëre keroog mais bis bu daanoo di dootul gis lenn loo xamante ni mën bëre la ci moom parce que mbër muy daanu euh, mbër bis bi ngay daanu rek cuune ngay doon. dalay bëre doo doo ko am te lépp yu bëre dalay réer làmb mooy def loolu Ronaldinho nag nekkoon na xale boo xamante ni bi muy ñëw ci làmb euh, amoon na masse boo xam ne yoroon na ko mm-hmm. mais am na technique bu nekk ci moom euh, am bëre boo xamante ni mu ngi ci moom mu ngi ci moom macha allah léegi nag bëre boobu bu ñu ko gisee ci moom gisuñu masse bi ñu bari dañ naan kii kat bu amoon masse mm-hmm. dina mën a génn ci làmb ci lu bari ñu jékki-jékki gisatuñu ko mu def sorteem euh, bu mujj ñëw indi masse bi ñu doon séentu ci moom bëre ci am ci ndam léegi nag dañu bëgg a xam ba xam masse boobu mu yor moo xam formam la moom moo ko moom wala masse bi dafa doon masse boo xamante ni lu mu yokk ci yaramam la te bokk ci loolu nag waaw loolu nag dañuy xaar tuuti parce que wolof def ne nañu euh, lu yàgg waaw lu yónni yàggul daal ndax yàgg bawul dara ñu xool ba xam lancé boobu mu nekkoon moom ki nga xamante ne mooy Ronaldinho ba xam dina fa nekkaat doomu dàngu mu ngi ko gëj a gis ci tournoi TFP ba hmm. bi nga xamante ni Fallou Ndiaye moo ko tëggoon mu nekk leader ci xale yi Euh, doon bëre euh, ne ay jaloore ci làmb mu dugg ci TFP oh, ba. ñu mm, waaw waaw moom feu rouge. arène nationale dëgg la léegi mu dugg ci TFP bi bëre. Mm-hmm. ñu gisatuñu jëmmi jëmmi jëmmi gam euh, jëmmi doomu dàngu mi ñu doon gis parce que doomu dàngu mi ñu xamoon. loxo bi gauche droite bi ñëpp ko doon daw. Ah, mbër yëpp xamee nañ ni mbër moo ci wax danaan la doomu dàngu gauche droite bi baaxul. parce que bu la sottee gauche bu la indee droite bi nga wàcc. ñu taxaw tuuti ci doomu dàngu. ñu gis ne doomu dàngu combat moom euh, Ramdaan dafa yomb lool. Hmm. mu dugg ci TFP bi ñëpp defoon ko favori. Hmm. moom sax boppam moom ci wàllu boppam ne woon mooy favori ci TFP bi. Hmm. ndax bañ a gëj a bëri wala ñàkk adversaire moo ko dugg ci TFP bi mu ñëw am Ramdaan combat bi yomb dafa xamul Ramdaan wala da koo xeeb wala lan moo tax combat bi ndax ku ne gis na combat bi ñëpp foogeewuñu loolu yaakaar ne dinañ xeex bëri Ramdaan tamit nekkoon xale boo xamante dafa am fu mu tegoon bëtam mais mu ñëw combat mook doomu daangu yomb loolu bàyyi ji làmb jooju noo ko gisee euh, dafa dugg ci TFP bi mm-hmm. euh, bëre combat bu njëkk su ma juumul euh, mu ngi ko bëre moom ak mook doomu daangu moo ci bëre parce que Ramdaan dafa jógee ci victoire diggante moom euh, ak euh, infra rouge mu daan infrant rouge nekk ci ci lancé bu baax dugg ci tournoi TFP bi nekk fa ak ñoo xamante ne tey ñëpp mën nañu champion lañ mais ay mbër yu mag lañ Ramdaan dafa bëgg wane boppam ci ñooñu tey ñu tirage mu am doomu daangu Ramdaan kontaan jóg fecc xam ni tey li mu bëggoon wane ci làmb am na ko mais man nag Ouzin damay damay damay yërëm mbër mi nga xamante ni jàpp nga ni ngay bëri Ouzin yéen askan bi yëpp ne yow yaay favori nga jàpp na yooyu yaay favori parce que favori moom boo déggee ñu koy wax rek en général favori euh, mooy ñi nga xamante ni jàpp nañ ni tey bu doon cinquante la euh, quatre-vingt-dix yi wala wala bu doon cent la dañ naan quatre-vingt-dix yi Ouzin moo ko moom jii li lim chance bi mu ci am bariwul dix pour cent la ci am ñu bëre ñoom ñaar boo gisee keroog doomu dàngu li li mu waroon indi ci làmb ji yëpp ramdaan da koo fat mm-hmm. ramdaan da koo xañ xeex bi jege ko bëgg doomu dàngu wan ni ko dama laa ñeme ñëwal taxaw ñu xeex te doomu dàngu ku ko xam-xam ni kaay xeex moo ko gënal lu mu am ci àdduna mm-hmm. ñu bëre ñoom ñaar gis nga ci wuro bi ni ñu bëree ba ba ram daan jël bi mu ko daan tey su ma juumul daf ko daan mu def kat at bi parce que da ko suruxal dañu bëre ñoom ñaar xam na ne xeex bi la gën a bëgg Ramdaan daw jàppante ak moom roccee ko bàyyi ko bu ñu ko bàyyee mu rëpp def kat ab mu mel ni Ramdaan tey nekk na ci beneen lancé mais moom doomu dàngu am na défaite bu ko bett mu ñëwaat pour rectifier erreur am euh, su ma juumul deuxième combat mu ngi am soq xoolal deuxième combat bi li mu jot dal li ko daloon ci Ramdaan xoolal ni mu bëriwaat ak soq moo la wan ni am na mbër fu muy toll day jàpp ni képp ku taxaw ci làmb moo la mën mais am na fu muy tollaat day xam ne ndeke mënut kenn ci làmb bi mu bëreeg soq daa jox soq cër soq daf ko jox cër bi mu war bëreeg moom dóor ko mu kaw mu daan ko. ndax booy xool combat boobu soq moo ko ci xaw a tuuti. Hmm. moo tax làmb ji demee noonu ndax respecté wu ko. waaw ñu jógee fa mu am ki nga xamante ne mooy ñàkk ñu hmm. joxaat làmb ji cër. mu ñàkk jawriñ mu doo ñàkk jawriñ mu daanu nga hmm. am ki nga xamante ne mooy mobile hmm. mobile ba xaw ma mu am xaw ma daal lu làmb ji demee noonu mu jóge fa am feu rouge dooraat feu mu daanu hmm. mën nañ wax ne daal moom am na chance bëri am na chance daan mais ñu gis ren kenn gis ko dafa taamu taamu bu bari wala boog ñu mu bëgg a bëri la ko promoteur yi joxul wala nga gis ne moo ko téye ren ba bëri bu moom doomu daangu non dafa war a bëri Ouzin doomu dafa def ci làmb li tax mu war a mën a bëre ay champion hmm. parce que tamit mënoo nekk ci benn lancé bi rek euh, tey bi mu bëreeg Farouz hmm. Farouz mu baal ma amul lenn loo xamante ni dama ko koy wax wala dara mais bi mu bëreeg Farouz jotul woon pour moom mu bëreeg Farouz moom doomu daangu combat boobu avantage Farouz la woon mais Farouz euh, ñëw na ah. bëre waaw ñëw na euh, xëy na def fi xale doomu dàngu daan ko Euh, mu doon defet boo xam ne defet bu ko metti la mu ànd ak ay mbokkam doomu daangu fi mu toll ni dafa war a am ñoo xamante ne boo leen tuddee ci làmb tudd leen tey boo nee Modou Anta bu Thiès war ngaa tudd doomu daangu boo tuddee Garga de mi daanoon fi mu toll ni ci lancé bi mu nekk war ngaa tudd doomu daangu boo tuddee Maama Lamine war ngaa doomu daangu boo tuddee Gora Sock war ngaa tudd doomu daangu doomu daanaka bëri na ay ndaanaan yoo xamante ne ci làmb fi mu toll nii ñu ñuy woote làmb ndaanaan war naa mën a laaleeg ñoom. léegi nag làmb boo demee ba ngay gis loolu euh, doo mën a comprendre doomu daanaka def na seize euh, victoire ak quatre defet xoolal loolu palmarès boobu kooku kan moo ko mën a bañ ci làmb. seize victoire quatre défaites. champion bu mel ni doomu dàgg Adama ma koy jaajëfal bu baax a baax a baax sama xarit la te doomu ko bëgg mu bëgg ko euh, gis naa liggéey bi li mu ciy jàppee bu baax a baax mais da ngay xam ni tey carrément ku mel ni doomu dàngu ci loolu da ngay xam ni kii ndaanaan amul ku ko mën a bañ ci làmb Ouzin Modou Lo tey boo doon xool ay euh, nombre victoire am boo nee vingt et un victoire wala nga ni vingt victoire wala dix neuf victoire ñaata defet ngay lim trois defet ngay lim. trois défaites yi ko daan. ñaari mbër la. doomu dàng mu am quatre défaites. bëri am seize victoire. kooku kan moo ko mën a bañ ci làmb. daa ñemee wax Garga Mbossé kaa ñu bëre mu bañ. daa ñemee wax Sa Thiès kaa ñu bëre mu bañ. daa ñemee wax Yékini Junior kaa ñu bëre kaa ñu bëre mu bañ. ñi mu ko wax mais parce que mbër yi des fois dañuy xool li leen arrangé xool fi xaalis bi ëppee am ñoo xamante ni tey amuñu ñu ci ni ma ko sañ a waxee am na ñoo xamante ni amuñu nijaayu mbër amuñu nijaayu promoteur amuñu dara dañ lay jéem a jéem a gas waaw waaw kay léegi nag da ngay a gas benn kàmb dugal la ci te alors que loolu du am doomu daangu champion la bu jugee tëngee gépp dañuy jug ànd ak moom mm. day mobiliser am na état de forme bu garaaw mën na bëre mën na xeex. est-ce que xam nga doomu daangu du ñëw ci làmb nga ne kii fan la nekkoon chaque jour day andi état boo xamante ni boo ko xoolee xam ne ci liggéey la dëkk. xoolal ma nga naan ma xoolal ma mbëru tënkee ji Ousseyn. Gamou mhm. bi muy dugg si ci làmb dama doon wax naan kii ku ko dóor mu mu génn làmb ji mais ndeke doole ji mu yor moo ëpp ni mu toll. léegi nag loolu dafay nax ñu bari xoolal Gamou Gueye tey boo xoolee diggante moom ak euh, Tafa Leer. digganteem ak Tafaleer gis nga la ca xew mu bëre moom daan ko jël bu amul benn werante digganteem ak soq fi mu toll nii moom gàmmu gay ñu ci bari moom la ñuy xaar. parce que soq xam na ni dafa am erreur bu mu defoon tëngéej bëgg rectifier erreur boobu ci gàmmu gay mooy doomu daangu daf ko dóor mu daanu te yaakaarul woon ni mbër war na ko mën a dóor mu daanu mu ne comme doomu daangu rëcc na ma te sama xel mi li ci nekk yëpp mooy ma am ama neex bàyyi ma jël soq bàyyi ma jël gàmmu gay est-ce que nag soq diggante ma gàmmu gay dina ci génn nañ xaar tuuti rek ñaan yàlla suñu borom mu mu jële ñu fi feebar bi mbas mi yàlla jële ko fi ba ñu delluwaat ci activité yi nga gis combat bu neex Ouzin nga gis combat bu am xeex komba bu am bëre combat boo xamante ni foo ko gis rek sa dina sedd. Hmm. ñu gis ki nga xamante ne gàmmu gay xale bu xale bu xale bu bu bu nekk ci yoon la kii Songane Gueye seen bilan bi baax na ñu leen di jaajëfal di leen wax ne liggéey ngeen. gën leen a yokk liggéey bi bilan bi am na solo bàyyi ji. Hmm. bi am na solo Ouzin euh, ñu nekk écurie boo xamante ne booloo nañ doon benn nañ gën a góorlu làmb am na ci ñoom yaakaar Tëngéej euh, am nañ ci ñoom yaakaar parce que Tëngéej tey mënoo tudd ay champion te doo leen fa bàyyi doo leen tudd boo xoolee ci gàmmu gay bu njëkk ba. Ah, euh, boo xoolee ci kii nu mu tuddati Papa Yade numéro un. Euh, ñuy ñaanal numéro 2 yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana xool ci diggante ñeneen ay Farman Farman Gueye xool yeneen champion yi nga xamante ne ñu ngi ci Tëngéej tey yëkkati nañ drapeau Tëngéej ba mu yegg fi mu yegg xale yi kon ñu ngi def jéego jëm ci kaw ñu leen ñaan rek ñu gën a góor góorgóorlu gën a jàppalewaat seen bopp gën a suudewu doon benn Tëngéej écurie yi fa nekk yépp war nañoo mën a booloo doon benn écurie parce que comme yéen bokk même benn drapeau bi ngeen di défendre doon benn ndax mbooloo kat mooy doole euh, loolu lañ leen indi leen ci jàngat làmb ngeen ànd ceeg bàyyi jiili ak Ouzin euh, di leen jaajëfal di leen tàggu ci tàggoor bi nga xamante ni moo du tàqali ko di la jaajëfal bu baax a baax. di a baax. bu baax a baax. Hmm. ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb jërëjëf euh, kàggu le cadreur des cadreurs yaa fi ne de kenn du yow.